ayca mbudday a sipawo jan mbudday mbunjan a sipawo jan meke kam ngel ne sadioga mbudday a sipawo jan mbudday ne a sipawo jan o xoorate seene u de kuma binda lamba làmb ak mu làmbo ma ne ko làmbo xam làmb ak la mu làmbo boo ko làmbee xam L'entraîneur Boudaay la fii ci Sadio Ga. nee na bu mu bàyyi ko foofu dem ba jël ngaari di